merci beaucoup donc comme ni ngeen ko gisee tey la ñu tàmbali di réceptionner aide alimentaire bi nga xam ne président de la république moo ko jagleel doomu Sénégal yi ci ñu ci bëri donc ci loolu nag moom la ñu doon réceptionner nii tey mu nekk quantité bu am solo ci wàllu ceeb leneen li ci des war a ñëw muy diwlin beeg saabu beeg pat alimentaire yi donc ñu fas yéene ko jébbal askan wi ndax choix yi euh, comité euh, sous comité de quartier yi ñoo dajaloon tànn ñi nga xam ne ñoo ko gën a yeewoo ndax aide bi aussi ñu xam ne nekkul loo xam ne ni dafay mën a daj ñëpp mais am na ñoo xam ne ci biir population bi ñoom aussi dinañ leen ci baaxee te vraiment population bi dajaloon nañ ñoom seen biir ci biir quartier yi tànn ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ko gën a yeewoo waaw dañuy fi mu toll ni ci réception bi lañ toll mais xam naa bu ñu paree ba réceptionné lépp rek parce que comme que ku nekk dafa am lu mu ci war a am donc mënoo ko jox lii après demaat di ko joxaat leneen da ngay bàyyi ba lépp daje matee rek nga mën a boole loolu yëpp daal di koo jébbal comme ni ko président de la république bëggee